à travers mboolem euh, plateforme yu fi teew yëpp euh, ñu ngi leen nuyu bu baax a baax kenn ku nekk fa nga nekk moo xam ci réew mi la wala ci biti réew asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi fii ci kër borom xam borom xam-xam ñu ngi fii ci kër kilifa euh, boo leen gisee ñu toog su ko laaka nekkatul ku ñuy présenté ci réew mi ngi tudd Cheikh Mouhamadou Lamine Dramé ñu ku nga xam ci borom béy bi. mu borom kiraama borom xam-xam bu baax a baax saa su ne bu réew mi toll fenn fi ñu soxla ko moom mu génn wax li nga xamante ne mooy xalaatam ci li mu réew mi ak ni li nga xam ne moom mooy tolluwaayu réew mi euh, ku nga xam ne moom ko gën naa génn def li nga xamante ne moom point de presse waaye tey ak fi réew mi toll ak ni actualité bi mi ak coono yi nga xamante ne actuellement réew mi am na ko ci wàllum ay accident ay xam ne ñu ngi ko gis ci réew mi tey yoo nga fi nga xamante ne moom mooy ci këram waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy euh, tolluwaayu réew mi Cheikh Mouhamadou Lamine Dramé asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bu baax a baax di la ziar di la bëggee encore une fois di jàkkaarloo yow chaque fois allahu akbar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, maa ngi nuyu ñëpp di jiital ci duma suma nuyoo bi Sénégal yi te ki jiite Sénégal yi ci loxoom laa koy teg mooy président Bassirou Diomaye fay su ma ko nuyoo nuyu naa premier ministre am muy Seydina Ousmane Sonko mu sell mi su ma ko nuyoo maa ngi nuyu mboolem Sénégal yi ne ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew di ñaan yàlla it suma kàddu gi fekk leen ci jàmm waaye xan ak mbégte ak kontante ci organe de presse yi site yu baax yi nga xam ne tey ñoo bàyyi seen itti yëpp ñëw ngir intérêt Sénégal mm-hmm. waaye ñëw ngir seen réew ñëw ngir seen dëkk mais ñëw ngir xam ne ñoom dañoo war a wasaare jàmm dañoo war a wasaare njëriñ mm-hmm. tax ñu teew ak ñun fii tey ñoom tam ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk rek ci sa tur ak ci sa sat mm-hmm. ak ci ña nga xam ne ñu ngi lay seetaan su ko defee ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu sëñ Mountakha Dramé di ko ndokkel moom it ak soxnaam bi ngi nekk bu fekk fii muy Ndeye ak ñoom Aboubacar ak mboolem koo xam ne yaa ngi ci kër gi fii. su ma nuyoo loolu ba pare nag nuyu naa mboolem daal koo xam ne yaa ngi déglu affaire bi ñu jublu ci programme bisimilah. sëñ bi wax nga ko léegi li ñaar sax nga génn yombul. waaye fi mu toll nga bëggoon génn baaxee askan bi rawatina ñi nga xamante ne ñoo lay topp baax a baax a baax tey fan na réew mi toll ci yow ba tey nga ne kat danga bëgg wax sénégalais rawatina ñi nga xamante ne ñoo lay siiw bu baax baax. waaw Sénégal. fi mu toll nii jamono bii ñu toll képp koo xam ne yàlla may na la basiira wala nga am xam-xam tuuti rek war nga mën a tiit war nga mën a tiit war nga mën a jaaxle war nga mën a am ay mbir yu bëree bëree bëree bëri yoo xam ne war na la mën a jaaxal lu tax mooy am na pouvoir boo xam ne nekkoon na fi te jeyekoo na fi ci atam yu mujj gis nañ ni dëkk bi demee woon ñaata doomu aadama ñoo ci dee kenn xamul ni mu toll ba pare ñaata nit ñu ci ñàkk seen liggéey ñaat nit ñu ci nekkoon ay nit ñoo xam ne manqué wuñ dara ñu dem ba mujj gi ñuy ñi dagg seen loxo ñi seen tànk damm ñi seen nangam léegi nag su ko si loolu amee tamit pouvoir boobu amoon na opposition bu mu doon xëccoon ci biir opposition boobu ñaat nit ñu ci loru ba tey itam waaye ñu xool bu loolu yëpp passé fan ak fan lañ jaar ba gannaaw bu élection amee ba ne élection amee après élection tamit ñu xool lan moo xew kon su lu mel ni boo ko boolee yoon la pour yow bu dee yàlla dénkee mbir. yàlla xam lu mu la xamal assi tuut yoon la pour nga génn laaxee biir Sénégal yi pour ñu bàyyi xel seen bopp li ma mën a wax nag muy réew mi jamono bi ñu toll manul neex ndax dafay tàng jër ci nawet bi ñu jëm day tàng ci li ne suñ kanam lu ci bëri du neex nañ waxante dëgg day doy waar lool sax lu tax mën a la day doy waar mooy affaire bi as daay yéen a ngi koy gis mais yéen a gis safara yi oto boobu daanu am ay blessé rek ay moor kenn xamu ni mu toll waaye avant oto bee daanu ci jamono jamonoy nguurug Macky Sall boo leen xoolee gisoon ngeen li xewoon Kaffrine gannaaw gisoon ngeen li xewoon ci ci yoonu Kolda la wala feneen yoon gis ngeen la fa xew ngeen gis ñaata doomu aadama ñu tuuru ñaata deret fi tuuru li ko waral nag dama ci dul sama baaraam politiciens yi dañ cee bokk mystique boppam bi nga xam ne daf nañ ko ci dëkk bi. doon ko dundee ci dëkk bi da ko nee ci dëkk bi loolu laa bëgg ñu bàyyi ci xel te xam ne réew mi amatul kaaraange bi nga xam ne war na koy am fu mu ni ci jamono bi may waxee ci côté mystique ak ci côté xam-xam parce que day aalo lu ndaw lu ne rek ngay def des na nag ay marché yoo xam ne dañ da nga dégg seen biir du yàgg dara da ko dégg yàggatul dara da dégg des na tuuti nga dégg marché yi dégg yeneen ak yeneen ak yeneen surtout maa nag ci nawet bi ñu jëm looloo waral nag. comme man Sénégal laa mën naa génn sànni ci sumay kàddu wax ngir Sénégal yi mën a jëriñu waaye yow mi am xel te xelaat bul far de bul doon pouvoir mukk ba far bul doon opposition mukk ba far waaye intérêt réew mi na la ñor intérêt réew mii nag dana jiitu si Sénégal yi safara sii da tàkk ay mbir la gis ngeen usines yi fi tàkk mm-hmm. ñëpp teg seen bët suñ mbokk groupe presse bu mag boobu di wal fajëri gis ngeen tàkk-tàkkam gis ngeen accident ci dëkk bi waa léegi ngeen ne loolu dañ cee noppi du sotti da cee wax ngir maanaam ñu bàyyi xel na dëkk bi am na lu fi xew donc tamit ñu bàyyiloo xel Sénégal yi ne am na lu xew su ko defee nag bépp sénégalais boo xam ne yaa ngay seetaan Lamine Dramé maa ngi lay wax ne soo ko manee na nga fexe nga saraxe benn ndabu laax ci sa kër ak soow mais nga sarax ko ay tout tànk soo ko defee jël ndoxam raxasuma tuur ko ci sa buntu kër yàlla mën na laa musal ci xay wi waaye mystique baa ci dëkk bi de dama ne nañ fexe ñu def benn boolu laax ci dëkk bi kër gu ne laaxu xaraw kër gu ne nañ def laaxu xaraw sonn ca xaraw ba togg ko ba noppi taaj ko ca kër gi daf ko benn bool solox ko ay tu tànk jël ndoxam raxasuma ne nga tuur ko ci buttu kër gi njig laay laa leen jox laaju ma xaalis réew mi dafa aalu deret yi sëriñ si ñu doon jëlee ind ak beneek fu ne ñu ñëw ci dëkk bi ak sëriñ ci nekk biir Sénégal doon nekk ci seen biir bopp ña ca doon gàddu kurus ña doon def fitis ña doon liggéey liggéeyu ñuul yi ñëpp ngi fi. lépp ci élection lépp a ngi fi ci élection yi la avant élection ak élection nañ waxante dëgg Ousmane Sonko mi pexe mu ne def nañ ko pour pour bañ mu réussir nañ wax ci lool. nga xam loolu maanaam sacrifice yi nga xamante ne Mhm. moo tax eh, deret waaw dama ne la maa ngi ñëw dama ne sacrifice yi dañoo bëri lu na wóor ndax man mi da wax ak yow xool nañ man ma loo xam ci Ousmane Sonko wóoruma dama wax rek hmm? lu la wóor ndax man bokk naa ci sëriñ siñ ko woon laaj leen deux mille vingt et un ndax xoo nit toogu ba guddi moo leen téléphone laaj leen nan ngeen xam ci kaw Ousmane Sonko Adji Sarr ndax wax nañ ma ko man waxuma ne wax nañ ma ko wala waxuñ ma ko waaye dama question rek tak dama junj teg waaye man naa am ñu wax ma ko man naa waxuñ ma ko waaye su fekkee ne man wax nañ ma ko wax ko samay xeex bu bëri boobu nekkoon fi maanaam euh, su ko defee loolu waa ji mucc na ba doon premier ministre même bu dekkul président moom mucc na ba doon premier ministre c'est parce que man bokk naa ci sëriñ ci njëkk a génne leen Ousmane Sonko gisuma mu nekk président 2024 maa ngi ko waxoon 2021 jamono boobu. ci laa waxaale woon ci dëju coon bi ak Wally Seck doon ko xelal la ma ko doon digal yëpp moom Wally Seck ci kanam danaa ci ñëw mu waaw lëggéey bon yeeg jafe-jafe yi ne ci mbiram ne ci ay mbiram waxoon naa ci bu yàgg man nag du ma waxantu man naa def vidéo nga saaga wax lu la neex waaye du demee noonu de mm-hmm. donc nañ lijjanti loolu sëriñ ci nekkoon ci kër dëkk bi da def sacrifice xam na kilifa gu mag boo xam ne ñi doon lëgg Ousmane Sonko la bokk ñaari xata ngi ne dafa yomb mantu sëy wax leen ci hmm? ñaara ngi ni mu ngi ci réew mii nekk kilifa goo xam ne dañ koy sukkal da ko raamaan ñaaraata ngi fi dafa yomb mantu sëy waa ngeen ne duñ ci wax. sëñ bi sëñ bi téléphone sa baaraam nga baal sëñ bi am loo xamante ne gis nañ ko fi lu yàggul dara loo xamante ne mas am ci réew muy accident avion. bëkk dem gis nañ ko ci AIBD benn avion bu génn du dox bu si yàgg mu am accident naam sax am sax ku ci ku ci ñàkk ba mais si fi mu toll ak ak Sénégal gi nekk nii loo xam ne mas mas mas am ci réew mi loolu te avion dem ba am ay ay ay accident loolu tamit loo ci wax. waaye la avion bi ñun sax ñun xamagut fu ñu jëm réew mi fi mu toll nii ñun xamaguñ fi ñu jëm nañ bàyyi xel président bi mu déparé suuf si la njëkk attaqué ñun ñëpp ci lañ jógee ko ci suuf la ñuy dollu kon war nañoo bàyyi xel suñu bopp. yëf yi du yomb léegi nag ñàkk a yomb gi mooy tax buñ ne bërit boo xamut yeewu te mbaa muus mbaa bopp bu baax nga daw attaque président de la république fekk demewul noonu nit bu sa jabar demee hôpital ñëw ne dama man de damaa jël fóot tey gisuma sumay sumay reegal dama indisposé wu ma tey nga ne ko ah xaaral ma jéem a jóg nag yëg la ji ngént teel na di <laughs> bu yëg la ji teel na parce que président bi mu toogee léegi biir bu baax mënuñ ko fee gis ñaari weer matagu ko kon ku ban gaa yëg la teel. waaye suñ toogee ab biir lam ñu waxoon suñ ko man dañoo commencé ñaxtu booba biir baa ngee feeñ waaye ku jël réew yàggut coole bu commencé man nag ci dëgg lay dox la jëm ci pouvoir bi dëgg laa cee wax la jëm ci opposition bi dëgg laa cee wax. Mhm. kon dama bëgg maanaam ñi nga xam ne dañoo pare pour opposition fukki at yàlla ku ko nar a am xol bu tàng sa xol day naqari dama seet noo def. dix ans ferme waaw waaw dix ans ferme ku ko nar a am xol bu naqadi dama ne nar ngay am problème yow du la fi fekk yow. te nit boo fekkee da ngaa opposition war ngay ñaan yàlla ne fi bu bu gaay wàcc fekkal fi nga mën a féete comme ñoom ñii nag seen ñoom féete ñoom am problème de ñoom amuñ ñoom seen xol yaa ngi gundaan daat courant bi nag ñaara fi ne lii seddal frigo bi boo laalee si gannaaw frigo bi mu ngi tàng fexeel bu bokk ci ñuy sedd rek waaye muy sedd ci biir ngay tàng ci gannaaw xam ne lu ko gën affaire bi nag dana dox ni mu war a doxee waaye dëkk bi du neex si jamono bii de nañ def nànk de day dëgër day métti na leer nii may waxee yow maa ngi dégg ay ay marché yoo xam ne seen borom a ngi yuuxu taabul yaa ña fa ne ci taabul yi ñu ngay yuuxu marché Gueule Tapée gii ñu ngi leen ramassé kon buñ ramassé téeméeri taabul ñaata ndaw ñu war a ñàkk seen liggéey acca ndaw yooyu fan lañ jëm tool yaa ngi leen da xaar ku ko ci am ku ci amul tool te beneen liggéey ngi lay xaar ndax yàlla moom wa min daabatin fil ardi illaa lahu rizquhaa maa ngi jégalu nag bëgguma di wax alquran ci su may wax ci yii nii waaye li ma bëgg a wax rek pour ngeen bàyyi ci xel yéen ñëpp mooy ne ñëpp xam ne réew mi daal am na nu may doxee jamono bii opposition bul ñëw mukk attaqué pouvoir waaye pouvoir bi ngir yàlla bul jël si xeet yi rek xeexee ko lii taxoon nag ñuy wax ne politique oto dof la boo gisee xeeti dof yi danga nga koy for boo koy for bu ko oto dof bu foree boo ko rombee mu dóor la ko nga daanu lii bokkoon na ci révélation yu ma leen bëggoona jox tey ngeen xam ne dëkk bi li fere ci mystique moo fi indi accident yi te day gën a doy waar te nañ bàyyi ba ndox laal suuf ñu xool fi ndox du laalee suuf ba fa muy jeexee lan mooy xew. Euh, na yeneen yoo xam yi nga xam uh-huh. gis nañ ne am na waaw waaw muy li ma wax rek jéey yi jeexagul te loolu mën nañu dem ba ci kanam yu bàyyi ko xel jéey bi jeexagul te buñ demee ba ci kanam dañ koy bàyyi xel hmm. ndax dëkk bi li fi ne ci dafa metti te itam palais de la république bii Bassirou Diomaye Faye war a dëkk nañ fexe ñu defar palais bi raxas ko waaw nañ defar palais bi ñu raxas palais bi ak mystiquement nañ ko defar ak mystique mystique ci dëkk bi la bokk bul ko fi jëlee déer ma ne ci palais bi rek bu ma ne palais bi rek dëgg dëgg lii loor nit ki ñaareel buñ ne di dafa am cancer dangay gis na loxo bi day leemu jëmm ji day jeex waaye ci biir yaram wi lay nekk donc mystique yi nga xam ne dañ ko fa installé woon nañ fexe yëf yi ñu jéem a xool nuñ ko dindee la fa nekkoon ci yu yàgg ba léegi ñu dimb mystique dafa am de xam na lu ci yàlla xaraamal la sax laay wax yàlla xaraamal la yu bari waaye du tee day seetaan mu xam de mystique dafa xam de xamoo dara d'accord naa waxal lu la neex waaye xam na de xoolal nag lan ngay fan ak nan ngay def pour mucc foofu la affaire bi toll kon Sénégal maa ngi leen da wax di wax président bi ak ñi ko ŋànk ak ñi bëgg réew mi na leen réew mi fi mu ne nii. li ci xew mooy avant ak après mystique bi dafa des ci réew mi doomi réew mi dee nañ ñii ak seen loxo dagg nañ ñii def nañ nangam mais fan la àdduna bi toll ak fan lañ jëm ñun Sénégal loolu il faut ñu bàyyi ko xel. waaw ragal naa ne ñoom bu ñu bëggee dindi mystique bi du ñàkk am solution parce que ñoom am nañ ay sëriñ ndax Sonko moomu ñu ko ñaanal ci sëriñ te weexalul leen kenn xamul ni mu tool keneen ak keneen kasaak. loolu dafay am te man xam naa ci ñu bari léegi wax naa la ne gis naa kilifa gu mag boo xam ne ci ñu doon xeex affaire bi ci la bokk tey daf na ñaari at yoo xam ne ba bu ma ci mujjee dégg dara sëyukut ak kilifa gu mag la am na sécurité am ñu koy rang yëpp benn problème waaye Sonko moom gis na ne ña ko jàppale woon bi mu déparé ba jóg ba falo ba mu déparé ña ko doon jàppale sëñ Cheikh mi ko moyoon xaram xar mi ak sëñ Abib si ak gaa yi xam ne bi muy fipp ñooy ñoo àndoon ak moom di dimbalante ak moom ngir yàlla bi mu départ it fa la jaaree at foofu moom wane na fa ngor gu mat sëkk ak kóllëre waaye nag bu mu fayoo ko na ci boole ñëpp rek saafaanteeg ñëpp yàlla mën na ko. sëñ loo loo parce que jumaa bu ñaare bu toogee bay xool lu bari da naan xam ci Bassirou Diomaye Faye. waaw Bassirou Diomaye Faye da doomi séeréer séeréer si ñu si bëri ñu fi takk yeeg sëf yeeg yaa ci xaaju après kooku foo koy boo koy jàpp ci mystique foo koy jàpp et yàlla bu sàggoonoon ba Bassirou Diomaye Faye ñu mën koy sonal yenn sax kon du ko def président président du caaxaan ki yàlla seet jël fukki nit fukki millions yi doomu aadama ak juróom-ñett na la kaay yaay ne sa bopp ba président ASC sax yàlla du ko fal cuute waxuma la président de la république loolu moom ñun sëriñ si ñu si nekk di commentaire di wax rek bëgg ku ñu weexal mais man gëwuma loolu ko vraiment mais nag da ngay xool nit ki day sonn di def fayaas di def leneen nga xool ko mu commencé def nànk rek ko mystique dañ comme boo mënee mystique nit kay ba nga xam ne du toog président mystique ko ba nga xam ne day yaanu yooyu mystique ko bu mu doon président rek mu jeex loolu moo ëpp solo. waaw euh, Sonko instant yi bu ñu àtt réew mi du Sonko la ñuy àtt Bassirou Diomaye Faye moom muy ko toog waaye Bassirou Diomaye Faye comme ne wax sànq bi may wax ak benn journaliste dama ne ko dégg naa ay sëriñ soo xam ne ñu ngi toonaan wax naa bu yàgg ne noo affaire bi dina kii dana nangam mu ne wax na bu yàgg ne affaire bi Euh, mu ne ma waxoon na ne Diomaye Faye mu doon président muy doon nangam ak nangam mais loolu yëpp mu wax ànd wax na ko de nee na moo ko wax avant Diomaye Faye doon président mais man d'accord ma Diomaye Faye bu fekkee am na benn sëriñ bu mos a wax ne Diomaye Faye mu doon président xanaa soo ko mu ko joxoñ lay def sëriñ si nañ bàyyi di langaamu ci loo xam ne seen yoon new ci Diomaye moo benn sëriñ bu ko a joxoñ moom ne moo ko fal ku mën a waxit ci mystique ne yaa ko gisoon xam man de bokkuma ci ñi gisoon na Diomaye Faye mooy doon président man Cheikh Lamine Dramé hmm. ah ah bokkuma ci dee du ma fenal kenn ni mel ci nit ñi daal la mel ci man xëy cëpp laa ci xam. Cheikh bu tudd sëñ Modou Bousso Dieng. waaw chaque fois bu génne fan yii day génn dal ci ko Ousmane Sonko lu bëri di wax ci ay kàddu yu a ñaaw ci ci wax. waaw léegi loolu warul nekk man gis naa gars di ko classe ci internet bi. Hmm. ak di wax lu nekk. Hmm. mais man pour man loolu dérange Sonko te wartu nekk problème te Serigne Modou Bousso it loolu dérange ko ah loolu war nekk problème waaye nag wéykat bi dafa wax ne lekk lem ak fadamtu lekk lem ak fadamtu mu ne booy lekk lem il faut ngay fadamtu wax ju baax. nee na lekk lem ak fadamtu ànd bàyyil ma dugal la ci soo bis tuuti nga xam. mi yaa gisee nee il faut nga ñam kaane kii saf guubu ci kaane. mun ne méttit bi ci kaani il faut nga ñam ko pour nga mën a xam suukar bi ci lem ndax dégg nga wax ji ah bon léegi léegi voilà léegi léegi su fekkee da nga koy ñam da nga xam lu ma la bëgg a wax mooy ñoom dañoo nekkoon au pouvoir njëkkee nag ñam lem gi ak sukkur gi boo tollee ci kaani nag yow yaa gën a xam ne nag boo tojee kaani yaa xayta gu guwaanaa ah. lu ceeb bi neex neex jën yi rëy rëy lan loola caa tegal rek mooy may ma ndox àjà ah sa kaan tey gi moom doy na waar bi kon ku lekk kaan bàyyi mu wax il faut mu ñaan ndox ku lekk kaan day ñaan ndox mënu leen ci dara. mbir mi tam ci ñoom moo tax ñuy wax. non loolu du problème il faut maanaam ñu may hmm. ay sonko moom wax dëgg yàlla moom man su ma gëm-gëm mooy sonko bañu ko ko dinga bañu ko ko linkaar mënul nekk parce que koo xam ne yow programme bu ne tegal nañ la ko lu mooy biir nga lañ la waxut hmm. kooku mënoo toog bañ ko wax ci man de su ma amee aabi wax ci yow wala aabi xaxar ko damay dem xaxar ko comme ñëpp c'est tout parce que mën koo bañ <laughs> voilà. sëñ bi ñoom gouvernement bi suba dañu wax ne le quinze. Mhm. dañuy wàññi dund bi maanaam ceeb beeg euh, suukar beeg ak lépp loo xam ne daal mooy daanaka dafa ñu def ñu bëri na ñu naan est-ce que ñi ñu wax dëgg la parce que suba ñu fekkee dañuy wàññi dund bi dund bu seer bi ñi nga xaar daal bu baax est-ce que ñoom dinañ ko wàññi wala wala waaw man d'accord mu loolu xam nga ne li ma gis ne su ma wax amut ay tappale man wiri wiri rek <laughs> laaj manut man dëgg ji rek laa lay wax. d'accord ma loolu parce que waxoon nañ ne le 10 gars yi dañoo wàññi mburu mi soo mbokki si si si seeg saako saako yu bëri ñoom ñëpp pare woon nañ foog na moom mburu mi dañ koy wàññi léegi la kees boobu buñ ko waxaatee tamit ñoom yii ne la ñu am Ousmane ko dafa mën a ñëw rek indi yi ne wax jamaay wax ko kasaaka mais am na ay ay ay nit ñoo xam ne tey investir nañ seen xalal te ci commerce bi dañ ko defee ci nangam bi nekk ay pro xamuñ ko rek euh, ay ay commerçant yu mag donc ñooñu ñëw taxaw. indi seen mil ñoom dañu war dañoo pare pour perte seen li ñu war a am wala déet affaire bi doxewul noonu da ngay waxtaan ak nit ñi kay ba pare boo waxtaan ak ñoom ba pare ñoom it nga may leen dele dele ba nga leen wax bu jotee bu ñu ko deful nga soo ko xool nooy def beneen bi ci tegee mooy Sénégal lu tax ñu bëgg a métti nguur gi dana métti ndax bu fekkee ne dañoo gëm ne dañoo gis ne gars yi politique bi li ñu doon gis campagne gisoo jamaay fay gaa doon bale gi waaw campagne gisoo fi ay ministères yoo xam ne dañ taxawoon di fecc di salsa ak yeneen ak yeneen sonko gisoo mu jàpp si ñaari loxoy jamaay fay ñëw andi yëkkati na kii moom kii diw muy jabaram mu ngi nii mhm. mais biñ faloo ba léegi gis nga mu jàpp loxo da nga ko giseeti bale gi jamaay dafa jaarite pesiteerum wala dafa jaarite Fatick wala feneen non amul temps boobu c'est que loolu politique woon léegi nag fekkee lañ ñëwoon noonu ci loolu lañ bëgg a continuer réew mi dana dam kon loolu gis nga politique campagne dafa am wax joo xam ne ndoxaan la booy doxaan xale bu jigéen bi message yi neex yoo xam yëpp da nga ko ko yónnee <laughs> tëdd naa ba tëdd mënu may tëdd daf naa nangam daf naa nii man sama yaay damaa tegal nangam yow mënu ñàkk mais bu dara dese lu sëy bi xam ñu tag ko si jàkk ji nag xam nga ne xale bi nga doon akkulaat di ko fóon ci potu lamb bi ak xale bi nga xam ne doon dam baal ki nga xam ne moom wax dëgg yàlla ak ki ngay gis ci mariage bi bokkul parce que gars dañ ko yóbbul gars yi ñu sinebal la ko ba pare may këpp ko ba pare nag jox ko robb bu weex na ko solal kon nag xam ne ka nga xamoon boo xamul waa ji doo ko xam fa nga gisoon fee boo ko bëgg gisaat fi rek problème day am déedéet moo tax bu yàlla deful jàmm bu fekkee ndaw si taay beeg forme beeg démarche ma nga ko sa parce que ëmb mëntu ñàkk ci fi Sénégal yi nañ gëm ne état bi dañoo il faut ñu may ñu ëmb na benn boo xam ne xaw na bëri coow muy la kala parce que ñoom ne ñii gars yi ne Pape Alé a RTS ndax day ba ñu koy jox kuy njaala télé bi ba ñu koy jox kuy njaala mbaa kuy mande kuy naan sangara kuy tuxu yàmba ñun su ñoon nekkul ci loolu waaw te nag maanaam bu fekkee bu naanee sangara la xel gën a ñëw baax na man man def naa opération boo xam ne maa ngi ko defee woon Thiès ki ma opéré <laughs> bi may ñëw avant mooy nuyu dafa naan bàyyi la nga ñëw ma xam ne kii dafa màndi te boobu ma xam naa ko mais bu fekkee mandiwut fekkee maanaam nit ki mandiwut du la mën a jëriñ mënu lay jëriñ kon kenn mandi a jëriñ la rek beneen ba ca tege mooy papa Ali Alioune lañ ko tuddee Seydina Alioune beneen bi mooy xam-xam ak vie privée nit ki bokkul Sénégal fii nañ bàyyi li ñuy def papa Ali man am na ay mbir yoo xam ne ànduma ci ak moom comme li muy classe sëriñ seet këru dini yi muy wax ak yooyu man ànduma ci ak moom waaye ànd naa ak moom ci bëgg réewam ànd naa ak moom ci bëgg dëkkam ànd naa ak moom ci jotee mu jaay jaay léppam ñëw taxaw jaay bakkanam ngir réewam daf na ko ci Abdoulaye Wade daf na ko ci Macky Sall te gis naa ko daf na ko ci Ousmane Sonko te gis naa ko donc kooku man ànd naa ak moom a ah, Papa Alé wax nañ dëgg mëntoo amee RTS Sénégal la mën a amee Papa ah. la mën a amee <laughs> kooku waxuma la mën a amee RTS waaye Sénégal sax na ko yàq dama ñoom li ñu wax dara néew si dañ leen ne Papa li ñu ko jox dafa tuuti mënoon koo seere Sénégal la mën a seere pour mu wér Sénégal la mën a seere dama la bëgg wax na la Papa Alé xam-xamam romb na RTS man sama wax ji dafa xaw a xuut xam-xamu Papa Alé romb na RTS na téye RTS séddale bukki ba fa xamoon bii bukki bi mbaam bi ki si njëkk jël teg naa suma loxo jeex Papa la njuñ njaaj gi jeex nañ ko bàyyi. RTS am naa ay borom xam-xam ku mel ni a xel du doy ak yeneen ak yeneen ña fa nekkoon ah, seen émission yi man dara mosul ma ci rëcc ñooyu ñëpp ñu xëy bale leen buule leen bu pour lam jaay doole jaay doole doole xamoo ko yàllaa ko am mi bis bu ne nga gis milliardaire boo xam ne dañ ko fekk hôpital jox ko neen jeexal ko tëkku bis bu ne nga gis millionaire bu ñu xenu sikaral ko mbaa ñu yoxul ko buñ ko yëkkatee ba sànni ko ci suuf ay sax dong lay daje loxo yi neexee ko doon raay sax dootu ko gis dir yànk ko yëgu gënoon na nopp ci kër ga lañ ko bàyyi booy jëf-jëfal ngir yàlla moo ëpp na liñ ko jox te dëgg-dëgg journaliste yi dañoo newut ngir yàlla rek maa ngi koy wax sànq fii may def interview ma ne gis naa journaliste bu taxaw ak Diomaye Faye ñëpp ko gis mu taxaw ne carrément jaaykatu xeesal yi wax na sarlataay sarlataay nag gaa yi ma gis ñu jël benn sëriñ monte ko wane ne ñun sëriñ yi ñuy sarlataay ne ci télé mais lan mooy sarlatan mooy ñu jàpp sa mbokkum journaliste nga war a wax noppi koo koy sarlatan lan mooy sarlatan sa suuf sa mbokkum journaliste ñëw ci programme am fi doole wala ñu jox la alal mu bokk ci alal ji ñu watal ko big sa mu war sa jot jot ci loolee sarlatan lan mooy sarlatan nga ne ci réew mi gis li dox nga war koy wax gis lu doxul nga war koy wax noppi ci loolee sarlatan kon il faut ñu jëm koy xool jaaykatu xeesal yi nañ leen bàyyi ñu xeesal maam Ndiaye sa bopp joojaat ñoom nañ leen baxee lañuy la ñuy jaay fii bët bi lay bu bët setee gàcce dana am ci guddi lañ ne nag waaye bis bu bët setee ku sa bët setee musiba am Papa Alioune day mandi nañ ko baxee mandi xam na koy doxaan ak a raay ak fóon ak tëddee jabari jàmbur te waxuñ ci nañ bàyyi jàmbur voilà. sëñ bi dañoo waxoon ne bu jumaay bu dem seeti sëriñ si maanaam di soo ci nga xam te moom mooy kilifa diine yi ñu gis Diomaye faloo dem Touba jóge fa dem te dem Tivaouane bëgg dem mu fi loolu ñu ngi koy wax ci Diomaye ñu demee waaw loolu waxu wujj ak morom kalaak olof moo wax na ku sa wujj da sëlëm doo set te xale jigéen ñi koo ci tàggu na ko dama laa bëgg a takkal wujj day seet ki nga xam ne baqatam day génne sexe mu may la ko parce que loolu kooku la la yéene ndax moom la bëgg wujjat nañu waxante dëgg rek fii kenn ku nekk sooy wax ci sa morom Ousmane Sonko noonu la doon def danoon xaxar Macky Sall xaxar yu métti ñëpp di ko gis ay nit dañ ko doon dañ ko xaxar Macky Sall di xaar xaxar keneen ak keneen ak keneen fii Sénégal la noonu lay demee mais nag boo xasee ba toog ya nga doon wax après ñuy dañuy ñëwaat tourné commencé di wax mais Bassirou Diomaye Faye moom li mu daf ci président mosuma ko gis. Hmm. président bu simmi dàllam da dox ak moom ca digg Touba <laughs> loolu moom ku bëggul Serigne Touba ba bëggoon njabootam gi doo ko def xanaa leneen lañ ñuy wax kay kuy nuyu sëñ Bay si Mansour su ko say tànk ba ci suuf jël say loxo jox ko ba pare du fóon ay loxoom. loolu moo wax dëgg yàlla ku gëmul sëriñ doo ko def te puis sax réew moom joxuñ ko pour nga gëm sëriñ nga weddi ko dañ koy jox ngir nga doxal Sénégal. Ah, waaye ñu gis nag ak góor jigéen ñoo fi rek mooy Charles Michel. waaye yow góor waaw góor jigéen gi xam nga gars yi dañoo naajee xeew. Ah. waaye boo teelee xëy xam nga ki saw lal. Hmm. Hmm. maanaam nit ñu ñoo teel naajee xeew rek waaye bu la yàlla dimbalee nga teel a xëy xam ne kese wala ak Saloum Ndao. Ah, waaw dama bëgg a wax nag. te jaxas boobu. gars yi dañoo naajee xëy. waaw mais kooku ñuy wax góor jigéen soogut a ñëw Sénégal. te itam du Sénégal rek lay ñëw. ñun dañoo war a noppi ci Arabie Saoudi gi nga xam ne mooy jëti l'islam football banque mel ne Tulle Male. ñu man faa yëkkati ab ab nit may ko na ko may nañ la nga ñëw boo xam ne du la neex nga ànd ak sa coro mu nekk ak yow te lislaam jiite ko mosoo faa xam fitna yu jigéen buñ fayee loolu kay wax dëgg yàlla Sénégal gi nga xamante ne mooy loolu kii ngi fi kii ngi fi mën nañoo tere loolu. loolu de problème góor jigéen du moo ñëwoon ca pali ba ku ñëwoon pour euh, gars yi vérifier contrat yam fa bàyyi woon ak li fi ñëwoon ak xool nu ñu def pour liggéey ak moom ci lañ ne. man garab bi ma naan léegi su ma bañ a métti ma naan garab gi garab bi ma naan xaw ma garab bi pour garabu lan la man xaw ma dañ ma koy jox noonu rek léegi nag garab buñ la jox yow xamoo garabu lan la. ah après yow lan nga ci man yow. Eh, xanaa nga xam lan nga naan. déedéet maanaam li ma bëgg a wax mooy garab bi xamoo garab bi. drap lañ ko liggéey xamoo luñ ko composé. xamoo luñ ko liggéey xamoo ci dara. yow boobu garab mën nga koy atte yow. da ngay naan rek sa bañ seet xamoo luñ ko liggéey loo ci xam. da ngay doon so def soog léegi wala nga am problème boo ñëwee ñu pigir la di tëdd nelaw Sénégal ci soog la toll. réew mi dafa daf soog daf accident yaram wi doon métti mu nekk ci ay toj toj ak affaire yooyu irsa lañ nekk irsa lañ du fa nekk lañ wax ju bëri nan leer irsa boo fa nexee dañ lay tere wax ju bëri loo bokk bokk nit ki dañ naan la ñaful fële toogal ne dañuy liggéey pareeguñ foofu la Sénégal toll Sénégal yax yi day métti dënn bi day métti ndigg la day métti tànk yi day métti duñ ko defar. Amadou Ba da doon pres da doon président Sénégal loolu moom maa la ko fi tey si ñëw. na ñëw mais Amadou laa wax de. Ah. billaahi wallaahi xallaahi du doon président Sénégal. Ah, comme 35 pour cent bii passé élection yi passé. ana Idriss Seck lu mu amoon 2019 Moustapha Niass lu mu amoon jamonoy 2000 ah, bokk sax si élection yi far wax ma leneen. kon Amadou Ba kon dañuy day pëndal rek démb ko mi ko. Amadou Ba c'est normal parce que dañ ne la yow yaay chef de opposition. chef de opposition. dañ la am nga 31 pour cent. Hmm. wala wala virgule nangam. léegi kooku c'est normal nga ñëw yëngatu nangam nangam waaye loolu liñ bi doon ci kayit la de bu ñu ko defaatoon sax doo amaat 2 pour cent loolu ci kayit la neexoon. kon temps 5 pour cent sax mën nañu ko liggéeyante kon nekkul nekkul dëgg. Eh, sa waay. waaw parce que am na ñoo xam ne tey wate nañ. waaw buñ doon wateeaat yëfi day gën a garaaw. Sénégal sax amuñ amuñ élection maanaam ren élection def fi mën nekkul parce que li ñuy teg. boo ko xoolee ba ci biir yow xam ne lii du ëpp na élection lii moom du élection far romb na référendum kaay jël la référendum lii kaay jël la parce que référendum muy loo xam ne dañ koy def mais lii kaay nga jël la kon loolu teg ko ne loolu du commentaire Amadou Ba bokkul ci course bi ñun li Sénégal fi ñu toll nii hmm. Aline Cissé mii gënuñoo am fit gënuñoo bëgg boppam su bu dafa compétition du la woo fii boo doon compétition duñ la dugal ñun tim suñ suñu réew mi c'est tout. mais sëñ bi da gis temps yi képp ku bëgg am projet foo wax ci wax ci wax gis nga kaaw Amady am projet foo laaj ci wax ci lu garaaw gars yi defal la soixante douze heures loolu tamit lan la. waaw mais man Aïssatou Diop Fall ak kaaw man Aïssatou Diop Fall su ma su ma doon wax dama gëm ne euh, donc moom li muy wax journaliste la et puis yàgg na communiquer comme noonu. mais dañ ko war a may bàyyi ko moom mu wax comme li mu centre moom ci réew mi comme journaliste dañ ko war a may bàyyi ko mu wax donc tamit ñi nga xam ne dañ koy tontu ah ñu jéem a moytu tuuti rek ci wax ji parce que comme ni ma koy waxee rek sànq maa ngi koy wax ma ne ku mel ni Cheikh Bara Ndiaye jot na pour mu noppi. waaw parce que ay ñoom Thérèse Diouf Faye ak gaayam topp ak yooyu yëpp jortu ko ndax réew boo waxee ba falu ñu ne ci liggéey wax naa leen waaye ji dafa lu nekk irsa laajtu ay wax ju bëri. na bàyyi ba gaa yi pare Thérèse Diouf Faye ak gaa yi yëpp na leen bàyyi may leen jàmm ñu xam xaafiya mm-hmm. réew mi ci liggéey la toll plateau yi nga xam ne ay ruube laak euh, euh, donc Walfadjri yéenuma leen sax euh, kii bi mais maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla dimbale leen génn leen ci xat-xat yooyu ndax safara yi fa xew yëpp mais am na say yenn plateau yoo xam ne dañ ko war a di jàngaat di ko xool boo bëggee dimbale nit ki ci lim toll dafa am na ko ci dimbale leen lu nekk lam toll dafa na ko ci dimbale affaire bi nag xam-xam la laaj soo ko xamul nga dem noppi loolu moo fi des mais Aïssatou Diop Fall man gëm naa ne li muy wax am na ci droit man na ci wax tam du ko xalab de déedéet nañ ko bàyyi mu wax lim sentir bi mu ko waxee am na xale bu góor bu dem ba sa wal fajiri tontu wax lim gisee ñoom ñaar ñi ngay wax ci mbiram yoon nañ dem ci yoon yoon àtte leen loolu muy wax ji